saraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa la combat royal diggante Modou Lo ak Ama Baldé ba kenn xamagul lan lay demee avenir bi le combat amagul kenn ku ko wax du ñaari mbër yi du seen staff du seeni coach Modou Lo xamagul naka lay mujje ci bile combat ba léegi amagul lenn lu ca wax ca yàbbeeku moo waral journal Baldé ne man de Luc Nicolaï gisaguma ko sax dama ne ba mu génnee ba léegi dégguma ko gisuma ko ba mu génnee ba léegi woowuma lijjanti woo mbiri combat bi waxu ci dara man nag dama ne ginnaaw woowuma man duma ko woo woote wax ci combat bi moom mi promoteur bi moom la war en daal li am ba des mooy man woowuma déggante wunu ba génnee ba léegi gisuma ko bu dee biram ñi ngi mu moodu loola mu xamle mooy man am naa yaakaar à cent pour cent que naa yaakaar à pour cent bile combat danañ ko bëre li moo waral journal ba indi jàngat ndax Modou ak Ama Baldé kenn xamul combat ba naka lay mujje Zil Baldé Biram ñi nga amul kenn ku ci amagum lu ko leer gannaaw ñooñee amagul lu leen leer nag sàkkamtuma ak lu làmb ñoom amateurs yi amaguñu lu leen leer ci diggante Modou Lo ak amaguñu ci lu leen leer ci kenn mooy remplacer Alioune Sarr ana teg ci bopp CNG bi ba léegi làmb ji bàyyee keneen beneen comité de gestion lañ war a waaye moom Bombardier ka mu gis ne doy na ko mën naa yore CNG bi mooy Mohamed Ndao Tyson moom daal jàpp na ne Tyson ko ko jox CNG bi mu piloté ko doxal ko ba mu jëm ca kanam bu dee Wenceslas Ndione arbitre international bi nag moom la mu xamle mooy Alioune Sarr ak CNG ñoo yàq làmb ji làmb ji bu yàqoo rawatina lii di lutte olympique ñoom ñoo ko yàq ci cahier de charge ministre des ñuy laaj ndax dana nangu Tapha Gueye nekk ci ginnaawam ci combat am revanche bii digganteem ak Balla Gaye 2 mooy Gris liberté dem ak boppam mbër mu def ci lamb 20 moom mën naa demal boppam sans kenn jàppale ko waaye bu dee ñeneen nag dañoo ñëw ngir jàppale la day gën neex bu ñu jàllee ca bilan écurie jàmm gën si gàmbaaw dañ leen di fekk ñu def 7 victoire 3 défaite ku wax écurie jàmm gën si gàmbaaw ginnaaw nga wax Siré Seras da wax Filikis da wax Sidi Diamaguène da nga wax Liss Ndiago foofee seen sept victoire yi Ahmed Gambien moo daan Grenade 2 bu Plateau caatu Jolof moo daan njagambër bu Grand Dakar booloo Mbay Xadda moo daan Alliance bu Abib Ndiaye doomu Diamaguène moo moo daan Rekoba bu Mor Fadam Liss Ndiago moo daan Général Kayré bu Daara ji Lacrose 2 moo daan Bébé Ñaag bu Lacrose Single moo daan Marlé bu Jender bu dee seen defee nag la mu xamle mooy damay ñaax mbëri ngir ñu yokk cere dolli ñeex dama leen di ñaax ngir ñu gën a góorgóorlu te xam ne liggéey rek ay maye ñoom li may dugal seen nopp mooy seul le travail paye jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën fës ci yéene bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah